الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
الله asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñuy déglu fii ci sunu programme bi ñu dippee kàddu gu sell gi seen mbokk seen doomu ndey seen am di jàmm pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu programme bu am solo bi may nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo ñu may ba ñu tal ko ba teew fii tey di sant ki nga xam ne moo ñu sàkk aji nekk gi aji sax ji nga xam ne moom ay jaamam lañu te moom mooy ki nga xam ne moo ñu bind kon bu ñu nekkee fii ci àdduna lépp li nga xam ne ñi ngi koy def lépp li nga xam ne sunuy jëf la dañuy war a bàyyi xel ci ki nga xam ne ay jaamam lañu te moo ñu moom muy yàlla sunu boroom moo tax tey jii danañ delluwaat ubbi téere bu sell boobu nga xam ne moom la ñu jox téereem bu sell boobu nga xam ne ci la jaar won ñu boppam jàngal ñu won ñu yoon yi nga xam ne ci la ñu war a jaar teg ci sunu tànk fii ci biir àdduna ngir ëllëg bu ñu demee ci kanamam danañu yóbbu ci palaas yu yooyu nga xam ne moom lay teralee ñi ko déggaloon ñi toppoon ay waawam te dummóoyu woon ay tereem kon biibal bi dañuy jàng ci injiil jàng ci xaaj bi nga xam ne moom lañu jagleel Macë jàng ci aaya juróom benn saar benn ba ci ñeent lii ñuy jàng nag sang bu tedd bi di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist moo ko wax mu nekk ci téere bu sell bi nga xam ne moom la ñu yàlla sunu boroom jagleel mu wax ci ngir jàngal ñu mu wax ci ngir won ñu fan lañu war a teg sunuy tànk lan moo war a doon sunuy jukko lan lañu war a xëccu fii ci biir àdduna bu ñu jàngee ci saar yu am solo yooyu ci màcc aaya juróom benn saar benn ba ci ñeent lii la wax moom Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist nee na wattu leen a def seeni jëf yu jub ci kanamu nit ñi muy ngistal nee na moytu leen a def seeni jëf yu jub ci kanamu nit ñi muy ngistal sang bu tedd bi Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist daf ñu won dafa ñëw fii ci biir àdduna dund won ñu wax ñu ba pare nekk royukaay yi dafa nekk jëmm joo xam ne daan na defal doomu aadama lu bari loo xam ne ay kéemaani kéemaan bu ci paree mu ne jëmm yooyu nga xam ne ñoom la defaloon loolu teraanga googu mu ne leen kat bu ko kenn yëg bu ko kenn dégg dekkil na doomu aadama ne ay waajuru waajooju nga xam ne wala xale boobu nga xam ne gaañu na woon mu ne leen lii kat nga xam ne defal naa leen ko kéemaan gii nga xam ne gis ngeen ko baax gi nga xam ne wan naa leen ko bu ko benn ba ci ñaar yëg na des sunu diggante fekk na nit koo xam ne feebar bu am bu doy waar dal na ci kawam nit koo xam ne dafa gaana ay ati ati ati at mu wéral ko ci saase ne ko nag lii nga xam ne defal naa la ko bu ko kenn yëg mu ñuy jàngal foofu loo xam ne dëppoo na ak li mu ñu wax nee na wattu leen a def seeni jëf yu jub wala boog seeni jëf yu baax ci kanamu nit ñi muy ngistal yàlla sunu borom seydina isa almasi bi yeesu christ di ñu jàngal foofu ne kat ngistal bokk na ci li nga xam ne dàq na ko te bëgg ko te yàlla sunu borom bëgg ko nee na nit ki nga xam ne mi ngi def ngir ngistal lu ko may du ci am benn yool dafa joxe sax benn misaal bu ñu xoolee ci saar ñaar ci aaya juróom-benn bi ci màcc nee na booy sàkk sarax bul ko yëgle booy joxe sarax bul ko yëgle nee na na sa loxo ndeyjoor umpule li sa loxo càmmooñ di def nee na bu dee yaa ngi génnee sarax bu dee yaa ngi defal nit teraanga bu dee yaa ngi dimbale doomu aadama na nga ko def ci anam yoo xam ne sax sa loxo ndeyjoor biy joxe sa loxo càmmoñ bu mu ko yëg nee na na nga ci ànd ak sutura soo xam ne kenn du ci yëg ku dul yàlla sa borom mi nga xam ne umpalewul dara ak doomu aadama bi nga xam ne moom ngay ji teraanga googu moo tax mu ne wattu leen a def seeni jëf yu jub ci kanamu nit ñi muy ngistal mu yokk ci ne booy def lu baax booy sàkk sarax nee na bul ko yëgle nee na bu ko kenn yëg nee na bu dee danga ko def ci anam yoo xam ne nit ñi yëg nañ ko nee na kon jot nga sa payoor ndaxte nit ñi yëg nañ ko nit ñi wax nañ ko nee na bu boobaa jot nga sa payoor wante bu dee danga ko def ci njekk ak teraanga nee na yàlla sa borom mi nga xam ne umpalewul dara moom gis na li nga def te dana la ko fay dañu toll ci jamono joo xam ne nag ngistal am na fi doole torop bari na lu doomu aadama di def lu baax sax di defal nit teraanga wante dana ci boolee ngistal ba nga xam ne ku ko waroon yëg dana ko yëg ku ko warul woon a yëg dana ko yëg yàlla sunu borom nee na jukko yu mel noonu dàq naa ko jukko yu mel noonu bëgguma ko Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ne moytul jukko ju mel noonu dab la ci booy defal nit lu baax booy ji nit teraanga nee na bu dee def nga ko ci kaw ngistal xamal ne kat sa pay jot nga ko ndaxte nit ñi yëg nañ ko loolu mooy sa pay nee na bu dee def nga ko ci kaw sutura ak teraanga ngir yàlla sa borom nee na bu boobaa yàlla mi nga xam ne umpalewul dara képp koo xam ne jóg nga di def lu baax képp koo xam ne jóg nga di dimbale ñi nga xam ne yayoo nañ ko képp koo xam ne jóg nga di dimbale miskin xamal na yàlla sa boroom a ngi koy gis bu ko nit ñi yëgee ak bu ko nit ñi yëgul yàlla sa boroom moom mi nga xam ne umpalewul dara mi ngi koy gis te moom dana la fay ndaxte umpalewul dara kon mbokk yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaanu tey wi
الحب اللي عمره ما يشمت ابدا ابدا وبينسى ويغفر اساءات يفكرنا باللي راح أبدا ولا يفتح ماضي وشراحات آه الحب اللي عمره ما يشمل وبينسى ويغفر إساءات آه ليفكرنا باللي راح kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy déglu fii ci sunu programme kàddu gu sell gi dañu jàng sànq ci injil ci aaya juróom benn saar benn ba ci ñeent li nga xam ne moom la ñu seydina isa almasi bi yeesu kirist wax ma koy baamtuwaat ngir mu gën a leer nee na wattu leen a def seeni jëf yu jub ci kanamu nit ñi muy ngistal mu yokk ci ne booy sàkk sarax bul ko yëgle booy def lu baax bul ko yëgle ñu ñëw ci saar ñett mu ne waaye booy sàkk sarax bu ko sa loxo càmmoñ xam li sa loxo ndeyjoor di def booy sàkk sarax booy defal nit teraanga booy ji nit lu baax booy dimbale doomu aadama bi ko yelloo nee na bu sa loxo càmmoñ xam li sa loxo ndeyjoor di def ngir sa sarax nekk kumpa noonu yàlla sa boroom bi dara umpul dina la ko delloo loolu lañu sang bu tedd bi wax loolu lañu seydinaa isaa almasi bi yeesu kirist jàngal nee na del def lépp ngir yàlla nee na bu dee jóg nga bay dimbale del dimbale ngir yàlla nee na bu dee jóg nga bay gestu miskin yi dee leen gestu ngir yàlla nee na bu dee jóg nga ba sa xol laab nga ne kat danaa def lu baax dee ko def ngir yàlla nee na moytul di def loo xam ne doomu aadama yi dañ koy yëg nee na moytul di def ngir ñu dégg la nee na moytul di def ci kaw ngistal moo tax mu jox ñu misaal bu am solo boobu jaarale ko ci sarax ndaxte ay jamonoom jamono yahut yi ba moom bi mu yegsee yahut yi dañ doon demee ci li nga xam ne moom la leen Musaa jàngal jëlee ko ci yàlla sunu boroom te Musaa daf leen jàngaloon ne da leen def sarax bu baax da leen ko def lu bari da leen ko def saa su nekk dee leen gestu ñi nga xam ne ay miskin lañu nekk ci seen biir nee na Musaa jàngal leen ne leen da leen génnee asaka bu baax lépp loo leen am da leen ci génnee asaka mu duun mu ñàkk duun dee leen ci génnee asaka te dee leen ko jox miskin yi jamono yooyu nag mu am ci biir yahud yi ñoo xam ne buñ daan def yu mel noonu buñ daan génnee asaka buñ daan jox miskin yi dañ daan dem ba ci place yi nga xam ne fa la nit ñi gën a bare ci marché yeeg ak béréb bi nga xam ne fa la jàngu yàlla sunu borom bi nekkoon ci Yerusalem ñu fay génnee asaka di ko jox miskin yi di dimbali miskin yi ñépp di leen gis bu ñu toogee kat ñu ne tey de diw sàngam gis nañ ko génnee na lu demee ki nii jox na ko diw sàngam def na lii def na lële moo tax mu wax nekkat boo leen yi def ngir yàlla moytu leen di ko def ngir ngistal ci kaw ngistal mu ne booy joxe sarax na doon kumpa wante yàlla sa borom mi nga xam ne amul dara lu ko ump moom gis na ko te dina la ko delloo dana la ko fay kon ki nga xam ne mi ngi def ngir yàlla def ko ci njekk ak teraanga ak sutura kooku yàlla sunu borom nee na danaa la ko fay te bés ba mu la koy fay mooy bés bi dàq yàlla sunu borom ne ki nga xam ne def na ngir ngistal nee na kooku jot nga sa payoor ndaxte nit ñi gis nañu wax nañu nee na jeex na del def ngir yàlla bul def ngir ngistal loolu nag dellu siwaat ci biir jamono booy dimbale wala booy def dara bu ko ñaar ak ñett yëgul wala boo njorte ne ñaar ak ñett duñ ko yëg nga bank sa loxo ne déedéet duma ko def wante boo yaakaare ni micro yaa ngi fi caméra yaa ngi fi télévision baa ngi fi kon su ma defee Sénégal yépp yëg nga ne atay naa def yàlla sunu borom nee na am nga sa payoor ba pare nee na caméra yeeg micro yeeg télévision bi comme ñépp yëg nañ ko loolu mooy sa payoor jot nga ko ñu toll jamono goo xam ne boo yaakaare ni miskin bi nekk sa wet boo toogee ba xaaju guddi dem defal ko kenn du ko yëg nga ne déedéet bëgguma boobu man kay dama bëgg ëllëg fu ma jaar ñu ne ah mi ngi ne le moom de moo defoon moom de moo joxe woon moom de ah li mu def moom de ah li mu def ci loolu la ñu toll yàlla sunu borom Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ne ne déedéet dàq leen jukko bu mel noonu seen biir ndaxte li ngeen war a wut mooy di def ngir yàlla te bu boobaa yàlla seen borom dana leen fay te bu leen yàlla fayee rek seen xol sedd bu la yàlla sa borom fayee say jëf yu baax yi nga def ci kaw sutura njekk ak teraanga kon sa xol dana sedd te loolu la sang bu tedd bi jàngale loolu la Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ jàngale ma leen ko doon wax sànq bu ñu jàngee ci injiil ñu gis yu bare yi nga xam ne def na ko mu soob nag yàlla sunu borom mbir yooyu feeñ ci téere bu sell bi lu tax mu feeñal ko ngir di ñu jàngal dee leen def ci njekk ak teraanga dee leen def ci sutura dee leen def ngir yàlla dee leen def ngir yàlla dee leen def ngir yàlla te dee leen defal ñi nga xam ne ñoo ko yelloo dee leen defal miskin yi dee leen defal miskin yi yàlla sunu borom dafa wax ci kóllëre gu ñëkk gi ci tubaab ñu dippee ko ancien testament mu wax ci xaaj bi ñu naan Deutéronome mu wax foofu ci aaya fukk ak juróom ci saar juróom-ñaar nee na mu wax ci làmmiñu Musa Musa wax ak bani Israël mu ne bu amee ci seen biir miskin bul tëj sa xol bul dëgëral sa xol dee ko dimbale bu amee ci seen biir miskin bu amee ci seen biir koo xam ne loxoom jotul digg ginnaawam bu amee ci seen biir koo xam ne yelloo na ndimbal bul dëgëral sa xol dee ko dimbale yàlla sunu borom nag ne ndimbal googu dafa am ci yoon bu ma ko teg dee leen ko def ci sutura dee leen ko def ci njekk ak teraanga moo tax sang bu tedd bi Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ wax ci injil ci xaaj bi ñu jagleel Matthieu ci aaya juróom saar ñeent fukk ak ñaar mu ne mayal ku lay ñaan te bul jox gannaaw ki nga xam ne mi ngi ñëw ci yow mayal ku lay ñaan ki nga xam ne ñëw na tàllala la loxoom may ko te bul dumbooyu miskin bi nga xam ne mi ngi ñëw ci yow yaakaar ci yow Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist wax lu mel noonu nee na del may ki nga xam ne mi ngi lay ñaan te fekk mën nga ko yàlla sunu boroom di wax ci bu ñu jàngee ci li ñaan proverbe bi nga xam ne yàlla sunu borom moo ko wax jaarale ko ci Suleymaan bu ñu jàngee ci proverbe aaya ñett saar ñaar fukk ak juróom-ñaar ba ci ñaar fukk ak juróom-ñett mu ne bul dumbooyu miskin bul gàntal miskin bul dumbooyu miskin bul gàntal miskin ki nga xam ne ca dëgg-dëgg dafa nekk ci coono ki nga xam ne dafa yelloo ñu dimbale ko bul ko dumbooyu bul ko gàntal jëmm ji mel noonu dee ko may dee ko dimbale wante dee ko def ci sutura ci njekk ak teraanga kon mbokk yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñetteelu xaaj bi ñuy tëjee sunu waxtaanu tey
ولا يفتح ماضي وجراحات آه الحب ده من قلب الله شمس ودفا ونغم وحياة الحب ده من قلب الله شمس ودفا ونغم وحياة ماله نهاية وماله حد أصل ده حبه نبعه للرب أصل ده حبه نبعه الحب نبع الرب الحب اللي ما هو أناني يتمنى الأفراح للتاني آه آه آه ولا يتكبر ولا يتباهى ولا يرتاح وأخوه بيعاني آه آه آه الحب ده من قلب الله شمس ودفا ونغم وحياة الحب ده من قلب الله شمس ودفا ونغم وحياة ماله نهاية وماله حد أصل ده حب ونبعه الرب أصل ده حب kon mbokk auditeurs yi ñuy wéy di jàng li nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom wax ci téeréem bu sell bi di bible bi li ñu jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist jàngal ci téeréem bu sell bi yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax naan bul xànc njëg ku ko yelloo ndegam mën nga ko nee na bul xànc njëg ku ko yelloo ndegam mën nga ko te bul ne ki ko yelloo demal ba beneen ma jox la te fekk nga yore ko sànq maa ngi leen doon wax li yàlla sunu borom wax ci miskin yi yàlla sunu borom wax ci ki nga xam ne yelloo nañu dimbale ko fii yàlla sunu borom di ñu wax nee na bul xànc njëg ku ko yelloo ndegam nga mën ko boo mënee dimbale miskin bi boo mënee dimbale ki nga xam ne yelloo na ko te nga ne kat kooku doo ko dimbale yàlla sunu borom nee na lu mel noonu kat dàq na ko nee na boo mënee dimbale ki ko yelloo boo mënee dimbale ki nga xam ne miskin la nga ne kat danaa ko dimbale wante ci kaw ñépp yëg ko yàlla sunu borom nee na dàq naa lu mel noonu nee na lu mel noonu boo ko defee payoor bi nga waroon am duma la ko jox yool bi nga waroon am doo ko am lu dul fii ci àdduna ñu tudd sa tur mu yem foofu nee na bul ne ki nga xam ne dalay ñaan demal ba beneen fekk nga yor ko nee na ki nga xam ne dafa ñëw ka tàllal la loxoom yaakaar ci yow nga ne ko déedéet demal ba beneen yoon fekk li mu lay laaj mi ngi foofu nee na jukko ju mel noonu bul ko am dàq naa ko bëgguma ko loolu nag bëri na ci àdduna loolu nag bëri na ci àdduna rawatina fii ci sunu dëkk yàlla sunu borom barkeel la may la jox la waxuma sax mu barkeel la lu bari lu bari wante mu may la loo xam ne mën nga ci suturlu ba mu dimbali ci yeneen doomu aadama nit ñëw ci dëgg-dëgg ak soxla soo xam ne lu dëggu la lu am la waxuma nag ñi nga xam ne dañuy ñëw di kàcc déedéet wala boo nga gis koo xam ne ci dëgg-dëgg soxla na dimbal mu daw ñëw ci yow nga gàntal ko ne ko kat demal ba beneen yoon fekk li mu lay laaj wala li nga ko mënoon dimbale mi ngi ci sa loxo yàlla sunu borom nee na déedéet bëgguma lu mel noonu nee na bul xaan ci njëg ki ko yelloo am na ñoo xam ne ñi ngi ci biir àdduna dañuy yelloo ñu dimbale leen yàlla sunu borom nee na jëmm yooyu ñi ngi ci seen biir bàyyi naa ko ci seen loxo yéen doomu aadama yi yéen sama jaam yi bàyyi naa jëmm yooyu ci seen biir yéen a leen war a dimbale wante bu leen ko def ci kaw ngistal bu leen bank seeni loxo bu leen gàntal jëmm yu mel noonu ndaxte ay miskin lañu nekk ci seen biir ñooñu bàyyi naa leen ci seen loxo yéen leen leen war a dimbale yàlla sunu borom moo ñu wax lu mel noonu nee na nag ñooñu ku leen yi gestu ku leen yi gestu ci kaw sutura njekk ak teraanga yàlla sunu borom nee na jëmm yu mel noonu danaa leen fay te yàlla nee na bu dee bu yàlla sunu borom bu nee danaa la fay ah na sa xol sedd ku yàlla fay moom sa xol dana sedd ku yàlla fay sa xol dana sedd ku yàlla fay sa xol dana sedd yàlla sunu borom wax ñu lu mel noonu nee na bul dumbooyu ki nga xam ne ñëw na riir jëm ci yow yaakaar ci yow te muy dëgg ci moom waxuma nag ñi nga xam ne dañuy sos rek dama am soxla dama nii dama nii déedéet miskin yaa ngi sunu biir ñu xam leen ñi soxlaa ngi sunu biir ñu xam leen ñu ngi leen di gis yàlla sunu borom ne dee leen defal ñu mel noonu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist wax ñu ko ci Matthieu aaya juróom benn saar benn ba ci ñeent nee na ñooñu nañ leen di jox sarax nañ leen di jox asaka te buñ koy def nañ ko def ci sutura te bu ko sunu loxo sunu loxo càmmoñ bi leen di jox bu ko sunu loxo ndeyjoor yëg nee na booy joxe sa loxo càmmoñ sa loxo ndeyjoor sax bu mu ko yëg ànd ceeg sutura su mat sëkk defal ngir yàlla dawal ngistal kon yal nañu yàlla sunu borom dimbale yal na yàlla sunu borom soppi xol yi ba ñuy gestu ñooñu nga xam ne dañ ko yelloo ndimbal miskin yi nekk sunu biir te buñ leen di gestu nañ ko def ci kaw sutura nañ ko def ci kaw njekk ak teraanga buñ ko def ci kaw ngistal nañuy bàyyi di def ci kaw ngistal wala boog di jox ñi nga xam ne am nañu ba mu doy sëkk bu ñuy jox nañuy jox ñi ko yelloo yàlla nee na am na ñoo xam ne dañ ko yelloo dee leen ko jox te yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax nañu fii ci biir àdduna fi la ñuy jox ñu mën a dimbale doomu aadama yi am na foo xam ne buñ fa yeggatee dimbale amatul dootoo mën a dimbale kenn ndaxte ñépp a yem foofu yàlla sunu borom nee na wax na ko ci téeréem bu sell bi ci kóllëre gu bees gi ci galat ci aaye juróom benn saar fukk nee na fii nga xam ne kat am nañ fii pexe yi nga xam ne mën nañ dimbale doomu aadama kon nañ leen fa dimbale noonu fii ak ñu mën ko nañuy defal ñépp ñi ko yelloo fii ak ñu mën ko fii ci biir àdduna nag lañ ko mënee bu ñu yeggee ci kanamam kenn dootul dimbale kenn ndaxte ñépp ay yem ci kanamam mu àtte ñu nag mu àtte ñu mu àtte ñu wante fii ci biir àdduna fa lañ mën a jëfee jëf yi nga xam ne ëllëg danañ ko fekk ci sunu kanam te yàlla na doon ay jëf yu baax ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist moom mi nga xam ne mooy sunu royukaay wan ñu jàngal ñu xamal ñu ne kat dee leen def fii ci biir àdduna seeni jëf yu baax ak yu jub dee leen i gestu ñi nga xam ne ay miskin la ñu yelloo ko wante dee leen ko def ci kaw sutura njëkk ak teraanga bàyyi leen ngistal kon yal nañu yàlla sunu borom dimbale ba ñu dummóoyu lépp li nga xam ne ngistal la te bu ñuy def def ngir yàlla ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mbokki auditeurs yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo nekkoon ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi di leen ñaan di ñaan yàlla sunu borom yàlla nay wéy di bind kàddoom gu am solo gi ci sunu xol ñu koy dundee mu sax ci ñun yàlla na ko saxal ci sunu xol mu doon li nga xam ne dañ koy dundee saa su nekk dañ koy jëfee saa su nekk ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist yàlla na wàccee ay xéewalam ay ngëneelam ak ay barkeem ci seen kaw yéen ñi ñuy déglu ak képp koo xam ne yaa ngi yeewoo fii ci biir Sénégal mbokki auditeurs yi ma leen di fàttali sunu numéro de téléphone di 77 074 35 35 képp koo xam ne nag bëgg nga jokkoo ak ñun képp koo xam ne bëgg nga am téere bu sell bii di bible bi mën nga ñu woo wala nga yónnee ñu message danañ la woo ñun dimbale la jàppale la ba nga am ci ñuy sant yàlla sunu borom. ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist wa salaam
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35